bismillaahi rahmaani rahiim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak ci Ali Imran TV tabaarakallaahu ñu ñëw wax leen wala yokkar leen yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg a ci jataay bi maanaam da ngeen bëgg a abonné di bës ci cloche bi maanaam fi ngeen di bës seen loxo su ngeen bësee cloche bi noppi daal di def j'aime te bu leen nag commentaire yi ndax am na ci bu ko defee nu ànd ak yéen ci liggéey bi bu ko defee abonnement yi gën bari àdduna si yëpp ànd ci ak ñun loolu mooy doxal ak liggéey bi jërë ngeen jëf bi ànd bi ngeen ànd ak ñun yàlla yàlla sàmm leen te sàmm salaamaaleykum wa rahmatulah de la paix la victoire. La résistance, c'est grâce à Hassan, c'est grâce à Kataib Ali Mustafa, c'est grâce à Kataib al-Jihad al-Islami, c'est grâce à toutes les fractions qui étaient tous unis par le sang dans le même front. Tous étaient là pour repousser les agresseurs. Et ce n'est que le début, mes amis et mes frères. سيدنا جبريل والله والله والله ثلاثة أيمان قوله ونراه قريبا وإنا لصادقون والله لا يدخلون lan mooy jullit dafa war a jàppale mbokk jullitam jullit jàppale mbokk jullitam lépp gis dëgg ko mooy gis dëgg ba wax ko te dëkk mooy Israël colonialiste la dëkk bi mooy Israël dafay noot Israël dafay noot Palestine dëkk bi mooy Israël c'est un état impérialiste bi mooy Israël moo tooñ loolu mooy dëkk te yéen ñii nekk indi donc waru am benn gàcce benn complexe ngeen nekk jullit di jàppale nekk Palestine ndaxte nag at yii passé dafa am ñoo xam ne dañoo am complexe bëgg diine ji dama ne am na ñuy jëfandikoo diine ngir noot askan loolu bëgguñu ko jëfandikoo diine ngir noot askan bëgguñu ko waaye jëfandikoo diine ngir fecc askan ngir libéré askan ngir émanciper askan ngir xeex moo teen diine moomu baax na jëfandikoo الفلسطينية ونحن موقعين مثله البيانتين أولا منذ عشرة أيام يشن اليهود الصهاينة الحاقدين بقيادة المجرم نتنياهو وبدعم من أمريكا والدول الغربية حربا ضروسا مقررة على كل أرض فلسطين التي باركها الله تعالى وعلى قطاع غزة خاصة يقتلون وينذرون ويحرقون وقد راح ضحية لها حتى الآن 231 من بينهم 65 طفلا ولا ذنب لهم إلا تمسك بعقوقهم إلا تمسك بعقوقهم الشرعية وانتفاعا مقدساته وتفوق بعقيدته ثانيا إن الذي يليه في فلسطين اليوم مجرد كناع لحرب شرسة الله أكبر conformément aux paroles d'Allah, le Théo, qui dit exactement ceci. L'autorisation est donnée

adoptons la déclaration suivante. Depuis plus de dix jours, Madame Monsieur, dirigée par le criminel Premier ministre Netanyahu, avec le soutien inconditionnel des États-Unis et des pays occidentaux, mène une guerre vicieuse et sur la terre bénie de Palestine et dans la bande de Gaza en particulier. À jour, d'après la presse internationale, personnes l'ont payé de leur vie, dont enfants, et qui n'ont eu que le tort de défendre leur droit légitime de jouir et de bénéficier de la terre de leurs ancêtres. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine n'est que la face visible d'une guerre féroce et dévastatrice menée contre la Oumma avec objectif à terme la destruction de l'essai de l'islam, en particulier le troisième essai de l'islam, Masajid al-Aqsa, qui, avec la mosquée de la Mecque, Masajid al-Haram, et le deuxième essai de l'islam, Masajid al-Nabawi, où repose Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ces trois sites religieux sacrés empêchent les gens de dormir, ne peuvent rien. Parce que si nous a déjà posé les garanties dans ce livre Asra, Suratul Isra le voyage nocturne les médias internationaux tentent de faire croire aux musulmans que ce conflit qui en cours depuis 73 ans en Palestine est simple différend foncier toutefois la constante que nous devons comprendre est qu'il s'agit d'une extension des croisades dans le but d'effacer l'islam de l'islam de la carte du monde. Nous devons donc considérer ce qui se passe comme de foi qui ne concerne pas seulement les Palestiniens, mais plutôt l'ensemble de la humanité. Le devoir légitime, légal et moral exige que le monde entier, particulièrement les pays musulmans, soutiennent le peuple palestinien qui est soumis à un génocide atroce et abject contre ces peuples, ces meurtriers brutaux. nous condamnons l'attitude désolérante de certains pays qui se précipitent pour soutenir le bourreau israélien en lui fournissant l'argent, en lui des armes et en lui apportant un politique dans les rencontres internationales consistant à justifier le crime d'Israël contre l'humanité. Nous nous attendions que les dirigeants des pays musulmans, en premier lieu le président de la République, M. Macky ministre Diagne Diaw à ce qu'il assure alors dañu wax ne président Macky Sall ñuy tuut safara ci ay population dafa ko dégg nga bàyyi nañu waaye naan ko il faut arrêter la délescalade moo tax ñun ñu déplorons ce communiqué du gouvernement du Sénégal que nous jugeons timide et complaisant de ñu ko leen di nuyu ci turu association islamique du Sénégal yi di leen ndokkeel bii te bañ leen xam ngeen ne fii daje nañ fi ba tey ngir jàppale suñu mbokku palestinien waaye daje tey bii daa wuute ak yi daan passé bii yoon dañ leen di ndokkeel lu tax ñu leen di ndokkeel mbokk jullit yi tey ci tey. gàcce ngaalaama suñu mbokku Palestine yi Israël gàllaajam toj na Israël gàllaajam toj na ndax suñu mbokku Palestine yi xas nañoo xam ba noppi ne mbañum kanam balaa ma koy fayal lool yàgg nañ fee toog di xaar jullit yi ñu leen di nekk di leen kuddee lool léegi nag xam nañ ne mbëjum kanam ma la koy fayal boppam commencé na la fay bor bi Israël gàllaajam toj na gàllaajam toj na ndax xas na ñoo fàttaliku wax ja yàlla waxoon ci alquran ne wala tahinu fi ibtilaa'il qawm bu leen xeeb seen bopp ci daj dal ci mbon bi bu leen xeeb seen bopp ci dal ci kaw noonu wala tahinoo fi ibtighaa'ikum in takuunuu ta'lamuun su ñu leen bombardé ak avion pour métti leen rey leen fa innahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun seen bomb yi sànni leen leen ko dana leen métti te bu boobaa tarjuuna min Allaahi maa laa yarjuun su boobaa yàlla dina dugal loxo te su dugalee loxoom toroxal leen Israaïl torox na Israaïl yàlla jëm tey na wala si soxlaatuñu ndimbalu kenn xas nañ xool bunt bi incha allah ku ñëw ñu tooxal ko ku ñëw ñoom dañ ko tooxal c'est fini pour Israël ñu ngi leen di ndokkeel ñu ngi ndokkeel waa Palestine di ndokkeel waa Gaza di ñaan yàlla yàlla gën leen a dëgëral c'est fini pour ñoom asalaamaaleykum wa rahmatulah bismillahi rahmaani rahim mbokk yi wa rahmatullahi barakaatu yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak Imran TV tabarakallahu ñu ñëw leen rek wala yokkar leen yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a bokk ci jataay bi maanaam da ngeen bëgg a abonné da ngeen di bës ci cloche bi maanaam fi ngeen di loxo su ngeen bësee cloche bi noppi daal di def j'aime te bu leen fàtte nag commentaire yi ndax am na bu ko defee nu ànd ak yéen ci liggéey bi bu ko defee abonnement yi gën bari àdduna si yëpp ànd ceeg ñun loolu mooy doxal ak liggéey bi jërë ngeen jëf bi ànd bi ngeen ànd ak ñun yàlla yàlla sàmm leen ca sàmm salaamaaleykum wa rahmatullah